kay mbaye <laughs> tata Mbodia Mbaye na jógal loo xewati tata Mbodia Mbaye dama dama am benn problème mel na man daal sama jëkkër su ma tëddee ba guddi dem bay sëy ak moom ndax damaa yor doom ndaw tata Mbodia sama doom ji day laaj weer ma te moom bu laajee weer ndey papa ji nee na la moom du bàyyi sëy bi moom day continuer sëy bi te xale bi il faut ma nàmpal <laughs> ko yow nag question bi ma mësal bi nga ma laaj ma ci dàqal et dama laaj ne ma maîtriser de loolu amul ceeb bu ci jaarul <laughs> kon tellement benn ñaar ñett doonu ñeent et eh, dem di sëy ba commencé guerre ba guerre bi takkat naa ci kaw laal bi xale bi ne watet képp kuy nàmpal ku ne jaar nga ci. pour la mu koy nga dégg gannaaw papa ji arrêté papa ji du arrêté de musul xale bi ba mu neex ba kuur ko dëpp ca gën ga nga di ko ne tarkal la xale ba yeewu na ma nàmpal ko ma ne ko amay de <laughs> kon yow wéyu woo eh yow saay saayoo gis man sëy bi man boo jël en personne man sama sariya bopp laa ci dund barke Serigne Bamba sa sariya bopp nga ci jël nag nekk ko mu namp loolu ku ci xoolal ñu baree baree bare war a jeeg ji yoon micro central mi ne kan la mos a dal fii mu ne la man man man man ñëpp tuut eh bari na ci de bari na jëg ji koy dund de eh loolu kenn du ko man yow sax yaa ngi a a yaay mun te bàyyi eh papa ji mënul bàyyi am na fu muy demee foo xam ne pour lan ngay bàyyi boo amee technique gu sëy da xam sëy bàyyi mu yeggale jox soo doom mu we mu ndàpp yàqalu la dara yàqalu la dara moo tax bu ngeen tëddatee ci biir néeg balaa ngeen di nelaw nàmpal leen seen doom yi ba mu suur yéen ñuy nàmpal sans seen kuusu doom yi ba mu set nga dëpp dëppal xale bi mu nelaw lu ko may dina coupé sa appétit baaxul heure bi la ñu xam kenn xamul dañoo fiir kenn xamul nag lu mu demee mais heure bi ñu xam bu ñu dencee guerre ba déclaré wu rek nga commencé gis nga nag loolu ñi muy daal dina bari am na suñuy fanaanoo doomi ponk li mbëggum jëmm dem ba pour ñu nekk seeni jëkkër ci kaw lal da leen di andi problème dem ba pour nga tëdd si jëkkër ci biir néeg bi sa moom normal da ngay am kersa bi parce que benn néeg nga am na juróomi doom foo leen doom amuñu bopp problème mais nan nga yore tey ji doom ay doom ñeenti doom ba juróomi doom ñu doon ay magi a amoo foo leen dara yéen ñëpp ci benn néeg bi bokk kon nan nga dundee ñoom am ñoo xamante duñu mën a sax sëy ak seen jëkkër normal duñu mën a sëy ak jëkkër normal kon nag ñooñu ngay yor di yot ndànk di ko def nga xam doon nangu sax bruit bi jóg kon boo tëddeeg sa liir carrément nag lii ba tarkal la dem ba commencé ba kuur ko dëpp ca gënn jokkoo weer wi jokkoo weer wi tolloog Louga kaala woon ndar yow <laughs> moo ja looy wax ni eh Louga kaala woon ndar munoo fee li jënd leneen lu la góor gi yegg na yegg foofu sax dafa baaxul nga fi dagg góor ah nga fi dagg góor boo nekkee naan te position bu mu la fekkee tourneel jël sa doom teg sa dënn jox ko weer loolu nampal kat bu la dalee dal ah. parce que munoo chaque jour nga nekk ca heure ba mu jàll munoo chaque jour nga nekk ca heure bi mu réussir <laughs> boo jëm ba gis nga yow billaahi boo jëm baay sa gémmiñ bi boo ko tëju dinañ la si waaye nan ma yóbbu yow yow di nañ waxante ci benn gi dëpp ci gënn gi sa oh, <laughs> ko ba jóg ko weer bay wut ku la nàmpale bàyyi papam mu la li muy def mënuñu koo bañ ci sëy la <laughs> loolu nag mooy amour mooy amour dëggantaan doom jënd la sa fa ku papam nga nekkal na neex papam nga nekkal na neex ñun du dal bariwul de ndax mënoo yor xale buy ndàmp di séparé moom comme ñu yor lu ma juróomi doom yoo xam ne ay maguñ jëmm amuñu fu leen dara sax nekk ak ñoom ci benn néeg waxutuma la yow mu yor doom ju ndaw di nàpp munoo séparé ak moom tëdd ak moom ci kaw la bi rek ngay mën te des fois nga yeetal ko ba mu nelaw ba yàndoo xale baa yëg mooy yëg bruit ba xaw ma bruit ba la yëg xaw ma da koy sentir ngay jékki-jékki gis muy tàll ta défini ay tànk ki loxo kom nag mënu ma ko dum da commencé naa pare du ma ko bàyyi pour bàyyi yëgalal loolu yàqu ci dara bàyyil xale bi mu nopp nga yëggale li ngay def l'essentiel que daal yow xale bu jigéen bii position bu mu la fekk boo xamante mënoo cee nàmpal tourneel te de position bu xam ne nga ko jox weer jël sa doom teg ci dënn bi lan la jotee papa jotee wu ñu dara <laughs> ku nekk la ngay def doom doom ji ween bi mu nàmp jotewut ak papaam dara waaye da nga gis jeeg bu ci ne eh arrêté bi yeeku na arrêté wul loolu kenn ci dagg sa borom kër pour la muy ba bàyyi ko mu yeggale ci jàngale bokk daan nga loo xam ne doo ko dagg parce que yaa ngi lor papaam te kee ween lay laaj ween ci dënn la ne te dënn ba la ne jox ko ween wa jaaxaar jël ween jël ci kaw dënn bi jox ko mu nàpp nga lijjanti li nga bëgg lijjanti ci biir néeg loolu nit mën ta ndàmpal ba feral ci kaw suuf wala ma xam sa jëkkër day tukki nekku ak yow waaye ngeen di yeewoondoo tëddandoo di génnandoo di jugandoo ci néeg ngay dootu la dal léegi yow papa ji commencé doom ji laaj ne da a dagg papa ja nàmpal doom ji tëdda comme habité googu nag da ngay laan di <laughs> loolu papa ji day laan suur mi ngi mel ni commencé lekk te suuroo dagg lekk nga naan ndox soo tëddee bu la tegaata lekk gi dootoo ko lekk loolu mooy laan dam bay tànkamtu ko ñu ko ka rek moo tax bul ko nangu bàyyi papa ji mu yàggale nga am ngërëmam ci jaamu yàlla gi la sëy bi la nga nàmpal doom ji dënn bi la soxla fa mu nekk fa papa ja nekk soree na bàyyi kii mu laaj ween nga jox ko ween yeggale papam te la bu dee joxe nga nag te yaa ngi taat bi bul ko dagg bul dagg de waaye génn ba ma bar ma nàmpal xale pare c'est pas normal c'est pas normal kii ngay bégal moo fi ànd xale bi papa ji moo ko fi andi kon yaa ngi ak moom soxla na la ba nga ne ca doom de yow na roof ko ween yeggale baay bi boo ja baay lii la wax te <laughs> xaar leneen jéeg yeewu leen te nekk nit